tey jii nii tey jii nii dama la bëgg a wax mm-hmm. que mm-hmm. tous ces gens là ñi ñi ñi ñuy tàllal loxo Macky Sall ba léegi est-ce qu'ils ont le luxe d'attendre jusqu'à 2024 justement bonne question euh, li ma ko bëgg wax mm-hmm. crise ci bu buubaka buuba crise du handicap ci réew crise opportunité la fan ci ban réew réew yi avancé yépp ci crise lañ jóge Chine bi muy avancé dafa jóge ci crise bu metti Rwanda bi muy avancé dafa crise bu metti crise opportunité la xam nga crise lan moo tax crise baax crise dafay permettre réew dellu aux fondamentaux tey par exemple li ñu war a def mooy lan mm. covid bi war nañu ni dañoo war a fexe ba li ñuy lekk ñu ko fi bayee loolu t'as pas besoin d'être jàpp pour le faire xam nga lan la jël li tuuti li fi nekk aménager créer nit ñi bay mm. benn crise bi wan nañu ni li ñuy fajoo dañ koo war a topp tool suñu bopp mm-hmm. loolu y' a pas de secret. mais mais dafa dafa dafa réponds à sa question, continue ton raisonnement. Je veux juste te dire, mais qu'est-ce que tu fais des programmes existants PSE, tout ça, on en fait quoi Mais quand en période de crise, justement, le président a créé un nouveau programme qu'on a... Justement, justement. Tu en fais quoi Programme boobu, justement, dañ ko créer pour faire face à l'urgence. Loolu la crise di jariñ nañ ça te permet programme yi nga amoon nga réajuster ko pour teg affaire ci yoon donc c'est un nouveau gouvernement un nouveau programme justement je pense que crise bi opportunité bi ñu mën a may ah. mooy tegaat lépp ci yoon dellu aux fondamentaux deuxièmement buuba buuba justement soxlawuñu xaalisu kenn Sénégal soxlawul xaalisu kenn parce que Sénégal mënul am xaalis kenn tubaab yi taluñu ñu américains yi taluñu ñu ah. xam nga lan la des institutions comme ay HCTT des institutions comme conseil économique social tout ça toutes ces institutions là le train de vie de l'État moo tax mënuñu koo xalaat pour génn fa xaalis. mais loolu mooy dëgg. mais mi ngi fi dama la wax ni dama la bëgg wax dama la wax ni. mais yërim loolu dama la bëgg a wax ni ah. gis nga gis nga fii dans trent dans trente ans. dans trente ans. ñu bari ci ñun bu ñu yàlla dimbalee dina fekk ñuy dund. dama lay wax pourquoi il est urgent. ñu changé réew mi fi ñu toll nii non dama lay expliquer départ bi bu ñu rëccee choc bu mel nii bu ñu rëccee mais defal ndànk ñu perte les quatre ans qui restent de Macky Sall c'est très grave pour l'avenir du pays parce que qu'est-ce qui va se passer dafa xaaral wax la parce que ay 35 sax dafa tuuti projetons-nous d'ici 2050 en 2050 il y aura à peu plus de 32 millions de Sénégalais hmm. ñëpp nekk ci même réew mi importé ca moom xalaatatoo ko parce que asiatique yi nee nañu ñoom ceeb bi ñuy bay dootuñu ko importer ti dootuñu ko exporter ndax doyatu leen dégg nga wax bi c'est-à-dire on sera population bi dafay duble ñu nekk ci même réew mi produit bi nga xam ne moom la ñuy lekk mënatuñ koo import non c'est important c'est important parce que lu tax on doit poser les bases maintenant parce que cycle développement boo gis c'est entre vingt et vingt cinq ans donc bu ñu posé wul les bases maanaam virage bii bu ñu rëccee. te tiré wuñu les vraies leçons. en deux mille cinquante. mais Yérim li ngay wax nii yëpp. daa doon xam-xam mais dama ne la. Ah. les faits. Ah. li muy révélé. ak ah, yow li ngay wax mais les faits nag moo fi nekk. buuba xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga je vais t'expliquer. idéal. ak rêve fu mu amul dara amu fa. waay xaaral ma expliquer la mon frère. am na président yu bëri yu falu c'est en vendant du rêve. ça c'est vrai Sénégal bu ñu toogee moom c'est vrai. d'accord mais boo amee. même si après c'est dur retour à la réalité. dama ko wax sax leneen. mais boo amee douze ans. waaw. ñu fal la pour douze ans. Ah. nga dem dix ans yi. Ah mu def deux ans yi nga commencé teg ref bi ça pose un problème. waaw mais léegi les faits les faits bu ñu toogee ci les faits. on ci question boobu. bu ñu toogee ci les faits maanaam jàpp ni réalité bi moo fi nekk te mënu fee dañ. parce que Sénégal. boo waxee ñu ne non fii Sénégal la. non on n'a boo waxee rek ñu ne non pour nga changer loolu Sénégal. non en général en général. boo waxee ñu ne réalité sénégalaise. Mm-hmm. buuba réalité yi il faut ñu dépasser ko gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga Kiguete bu taxawoon naan réalité Tanzanie Tanzanie du toll fii. oui ku foor bu taxawoon naan réalité Ghana Ghana du toll fii. mais on ne parle pas de la même chose mooy li kii doon wax Pape Djibril rek.